suñu mbokk yi jàkkaarloo ñun ca dañu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ndigal bàyyi ko na ci xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ca ànd ak wér jaar ci Serigne Abo Mbacké mi ñuy xoole tey jëmmi Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na ko yàlla dooli tawfiix wàcc ci seen soldaar ba seen jàmbaar ja di sëriñ Cheikh Anta Mbacké moom Serigne Modou Rokhaya ak mboolem njaboot ak sëñ Modou Rokhaya gépp waaye itam ci teewaayu Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Wadoud ak mbooleem njaboot ak Serigne Abdoul Wadoud gépp mbokk yi su ngeen gisee suñ teewaay ci jamono ji ak waxtu wii ngeen xam ni ka daan xewle xewleeti na mu di jàmbaar lislaam ji di Serigne Fallou gala Syll liggéeyaa ko nu seexul xadim xadim rasul bi nga xam ni at mu jot day woote cant nda la in sàkkartum la asidanakum kan lay sant sëriñam ba wasilaam wa yaakaaram ja di sëriñ Modou Rokhaya yàlla nañu ko yàlla fayal waaye nag ci teewaayu mbooleem njaboot ak sëñ Modou Rokhaya gépp moo tax nag tey jii ñu teew at mu jot nag bés bi daan am koo xamante ni moom lañ ko tudde ren jii nag mu tuddee ko jàmbaari Serigne Touba jooju nga xam ni moo di sëriñ Abdoul Wadoud Mbacké moo tax nag ñu teew fii ci ëttam ab xalifaam toog nii ak njaboot ak Serigne Abdoul gépp di Serigne Modou Mbacké ngir woote woote boobu bis bi tam sëñ Fallou Galas mi nga xam ne da koo da tudde da koo dara jaale Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Sohaibou Mbacké Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké waaye tam marraine bi tam moo nekk ki nga xam ni yàgg na koo doon di xaritam di wëllëreem di léppam di soxna Mominatou kebe mooy marraine bi waaye nag am na ay invité d'honneur yoo xam ni at mu jot leen di invité ci bés bi ñu tàmbalee ko Serigne Sidi Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké Serigne Abibou Mbacké moom Cheikh Mouhamadinil Fadil Mbacké Serigne euh, Serigne Cheikh Thioro Mbacké député à l'Assemblée nationale moom tamit ci invité d'honneur yi la bokk naka noonu tam Serigne Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis moom tamit ci invité d'honneur yi la bokk waaye itam soxna Faat Dieng di soxna ci ki nga xam ni moo di Serigne Boub moom itam ci invité d'honneur yi la bokk waaye itam soxna Astu Mbàkke Baali moom soxna Baali moom soxna may Maymuna Mbàkke ci invité d'honneur yooyu la bokk kon nag muy xam le ni bés le bisub sant la bisub ñaan la bisub fàttaliku moo Modou Rokhaya la su ñu xëyee daañu fa amal njàngam alquranul karim xasaayiti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul istighfar salaatu ala nabi basmala suñ demee ba bëccëg ñu bendeel mbokki taalibe yi julli suñ demee ba ginnaaw tàkkusaan si nag Serigne Gana Messere Maxtaar dana fa def waxtaan moom fa baaxoo def at mu jot waaye tam mbooleem ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee bés bi ak marraine marraine bi ak ki nga xam mooy parrain yi daañu teew ñu def cérémonie officielle bi ci teewaayu Serigne Fallou Gala Sill ak ki nga xamante ni mooy njaboot ak sëñ Modou Rokhaya gépp ngir woote woote bu am solo boobu nag dañuy njëkk a jébal kàddu gi ki nga xamante ni moo di Serigne Balla Gueye moom sëriñ daara mooy wax ci turu alxuraan ji ak sëñ daara yi ak nan fa fas yéene jànge alxuraan ja ginnaaw bu ñu paree jébbal kàddu gi sëriñ Mbacke Madina moom mi nga xam ne mooy wax ci soldaaru maam Cheikh Anta di sëriñ Cheikh Anta Mbacke ginnaaw kàddu yooyu nga xam ni ci sëriñ Mbacke Madina lay tukkee ñu jébbal kàddu gi ki nga xam ni moo di sëriñ Modou Mbacke di xalifa sëriñ Abdoul Wadoud mi nga xam ni moom la sëriñ Fallou Galass la tuddee ren cant gu am solo gi nga xam ni delloo buum ca boy boy ba la waaye itam fàttali mag ña ak seen taxawaay ak nekkin wa diggante maam Cheikh Anta ak sëñ Afe Anta moo tax tey jii dana delloo si diggante boo bële kon du def lu may yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Balla Serigne Balla bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi comme ni ko Serigne Moustapha Moussa Diop waxee léegi rek bis baa ngoogu sëñ Modou Rokhaya ne ku koy cant di ko fàttali ko alxuraanu karim moo ci njëkk moo ci mujj ku ne xam ne alxuraan moo nekkoon lépp mooy fàllu mi koy woote si ngalas bàyyam nekkoon sëñ daara jiite woon njàngum daaru salaam ay ati at kon ñuy woo sëñ daara yëpp Daaru Salaam ak Touba ni ko baaxoo daan defee rek kenn ku nekk teel a ñëw ñu nekk Touba te soreet ñu jàng lim bi incha allahu taala ñu jëm ñu ko jébbal suñu demee ba ngoon sëñ Fall dañ ko joxe lim bi mu sant mboolem sëñ daara incha allah dañ ko daan defee ku ne xam na si mu roqee daara nekkoon mbiram waaye alxuraan ka saalika taxaw na daara yi baree bari yoo xam ni daara ji ëpp doole Daaru Salaam moo joxe pàkk ya moo taxaw daara ji ba daara ji mel ni mu mel kon kooku bisam yaakaar naa jëmmi alxuraanu karim moo ci war a njëkk moo ci war a mujj kon la 11 février incha allah 2024 ñoo ngi woo ñëpp seen daara yi sëñ xaadi jaxate gi na rabita waaye sëñ mi nga xam ne ko saalikaat moo ko jox sëñ xaadi mu yor liggéey boobu ñoo ngi ci woo rabita bi ñoom ñëpp waaye daara kaamin daaru salaam ak bu Tuubaa ñoom ñëpp waa njaareen waa daaru moxti kenn ku ne rek sëñ Fallou wax na la nga bàyyi xel njàngum kaayil mi yéen a yóbbi sëñ Mudu Rox ak sëñ mi nga xam ni moo dara jaale bis bi lépp nekk rek ak sëñ Gaawaan kon ñu ngi ci woo ñëpp di leen bàyyi loo xel leen 2000 euh, 2000 24 bi incha allah taala ci 11 février Darou Salaam ko sëñ Fallou Galass Syll di rendre hommage ak di fàttaliku sëñ bi Roxe mi nga xam ni moo ko defal lim am lépp ba mën a jox so kenn ku nekk ci gaa yi baax yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu eh, di leen siyaar yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp eh, di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéen yi am ci liggéeyal sëñ Tuubaa yéene yi am ci liggéey lislaam lépp suñu borom defal ko ci lu kawe njortam eh, di ñaanal Cheikh Abou Mouhamad eh, mi nga xam ne mooy kilifa kësëñ sëñ Modou Mamoun gépp suñu borom yàggal ko fi moom itam te wéral ko eh, di ñaanal Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne mooy kilifa kër sëñ gépp moom suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ñuy wax ci kàddoom ak ci ndigalam ci di di leen fàttali bis bi nga xam ne moom la seriñ fàllu Gala si Sylla baaxoo def at mu nekk mu di ci fàttaliku Serigne Modou Roqee ak di ko ci ñaanal euh, di ci ganale tamit wasilaam ba ak sëriñam ba ñuy wax ci kàddu sëriñ bi sëriñ bi ne mi ngi leen ci woo yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yépp bëgg na képp koo xam ne ko aju ci kër gi nga wala képp koo xam ne am mbégteem sa mbégte la bëgg na nga ñëw ànd ak moom bis boobu euh, nee na tamit mu ngi ñaan képp koo xam ne euh, foo mën a nekk rek nee na nga def ay dog yéene ko Cheikh Mouhamadou Roqe ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi siyaare suñu mbokk mi ñu dendal muy sëñ Modou sëñ Modou Mbacke ndax ren ak dooleeku daf ci am ndax ak jokk bokk ak yaatal diggante sëriñ Abdou Wudoot ak sëriñ Modou Rokhaya kenn ku ne xam na ne ñoo bokk sëñ Afia ndax sëñ Afia ak sëñ Gaawaan ñoo bokk lépp ren ñu tudde ko sëñ sëñ sëñ Abdou Wudoot loolu tamit ak dooleeku la ci bis bi kon sëriñ bi nee na eh, bis boobu daal bëgg na ko ànd bokk yëpp waaye bëgg na ko ànd ak bokk taalibe yëpp ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu ci jàmm ñu dugg ci bis rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin mi ngi ci yow mbokki taalibe yëpp ak seex si ak soppe yëpp ak daayira yi aju kër yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo bëgg na ngeen ñëw ànd ak moom bis bi ku ci teew nag yàlla na sunu borom faj sa aajo ci barkeb Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala man ittafaxa al arabu bi aminihi qabla risalatihi wallazi buisa li yutammima makarima al axlaaqi sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp ci nuyoo ba gën a tedd nuyoo ba gën a màgg te booy nuyoo lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci waajtaayu bis bu tedd bis bu màgg ñu di ko defal suñu waajur sëriñ Mamadou Rokhaya mbakki mu suñu maam Serigne Modou Mamoun Mbacké koo xam ne nag ci njabootam la bokk di lépp ci kër gi seey ci muy sëñ falu Gala Sylla nga xam ne ni ñu ko waxee sànq daan na ko def di ko màndargaal di ko tudde ay kilifa bareen jii nag mu tudd ko suñu waajur Sëriñ Abdul Wadoud tudd gi nag moom waxal ma boppam sabab yoo xam ne bokk na ci la tax te mooy wax na ma ne mas naa toog ak sëñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké muy wax ak moom ci ay niti boppam yi ko gën a jege wala ci ñenn ci ay niti boppam yi ko gën a jege am ci ñum ci tudd ñam ci tudd nag sëñ Abdul Wadood ca la bokk te loolu man mii am naa ci firnde ndax sëñ Maodo Roxee ci boppam ma sama waxal boppam ne ma diggante Daaru Salaam ak kër sëñ Afia day benn ëtt rekk la kon Sëriñ Tuuba mooy yaatu ba kenn ku nekk mu defal la loolu day sëkk ba tax na mën ngaa ñàkk gis sa morom waaye benn ëtt rek la mu tegal ma ci nag lu mel ni lii sëñ Fallou dox tey mu ne mu waaye day sa day àggoon nag moom foo xam ne daan nañ daanaa toog at mu nekk woo sama rakk yëpp ñu àndandoo dem njaareem yen yendu jul ko ba ngoon ñu waxtaane bokk gi dellusi wa Daaru kon tey dafa mel ne loolee sëñ Modou Rokhaya doon jëmbat moom ngay jéem a suuxataat ñu am ci mbégti mu rëy rëy rëy mbégti mi nag mi ngi tàmbalee ci mboolem suñu kilifa yëpp la ko tàmbalee ci sëñ sariwu Mbacké mu ngi xale mooy xalifa sëriñ Afiye Mbacké waaye ak suñu waajuru bopp di lépp ci sëñ Abdoul Warad muy sëñ Moussa Moussa Abdoul Akram waaye itam suñu waajur sëñ Abo Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Mamoun Mbakke te fu ñu toog dafay mel ne moom lañ fa toogal kon ñu jàpp ne fii ñu toog tey pàkk bii ci biir kër maam Anta Ndiaye Mbakke maa ngi jàpp ne man maa ngi wax ci sama kàddu bopp waaye ci làmmiñu mboolem ñu askanoo ci maam Anta Ndiaye Mbakke ci lay waxee. kon di bu rëy ci yoonu murit di bis bu rëy ci lislaam waaye di bu rëy nag lool ci kër sëñ Abdul Wadoud ñuy ñaan suñu borom ñu àgg ca ci jàmm ak salaam sëñ Fallou suñu borom defal ko ci ndam lum mu ca mas am yàlla na ko bii ëpp ci saayir ak ci baatin te rafet na ci njort bu baax ndax niñ déggee li koy laytaay rek ci alquran jéeg istixfaar yeeg salawaatu ala nabi loolu daanaka doy na lu mën a doon laaj ne ma barki démb ñaata at la sëñ Abdul Wadoud dund ma wax ko ko ngir mu ne daf ko bëgg a wàcceel kaamil yu toll noonu te def nañ ko kon ñun moom eh, amuñu seen fay waaye itam nag am nañ seen fay ndax ñoo ko moom ndax si moto xi suñu waajur la kon lépp lu ko nit defal ñun ko koy defal kon jëf yi moom dañ ko démb moom ko tey di ko moom ëllëg incha allah ñu ciy sant yàlla bu baax di delluwaat dolliwaat ñaan suñu ñaari waajur yooyu mu sëñ Modou Rokhaya Mbacké ak rakkam ji sëriñ Abdul Wadud suñu borom dolli leen ay leer ci barzaxul mahamadiya barkat Cheikhul Khadim ñu ngi ci woo nag mboolem kuy dégg suñu kàddu rek nag ak koo xam ne fii ñu toll nii bi ñuy wax mi ngi koy seetaan ak ku ko déggal ginnaaw bi xam ne mënuñu fenn fo nekk ñu dem fa wax ak ñoom waaye lii moom mën na ko yaatal ku ko dégg daal te yàlla may ko fekke ak tal ñu ngi koy ñaan mu teew ci bis boobu ñuy defe ci Daaru Salaam kër sëñ Fallou Galass Sylla waxtu euh, sëriñ Mamadou Farmata Mbàkke itam dañu xam ne fii ñu toog ñoom lañ fi toogal mu sëñ Abdoul Akram mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mamadou Farmata Mbàkke tey ak sëriñ Cheikh Mbàkke Ndiine ak mbooleem njaboot sëñ Mamadou Farmata yëpp du soññaat bu baax nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkoon ko sëñ Abdul eh, góor ak jigéen bàyyi wuñ kenn dafa mel ne bu fekkee sëñ Abdul Ahad teew na teewaale na li des yëpp ci njaboot gi waaye bu dee waa kër sëñ Modou itam bu sëñ jiili teewee sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Madina teew dafa mel ne teewaale lañ mboolem njaboot sëñ Modou gépp ñun ñii teewit buñ teewee teewaale lañ njaboot Maamata Jaay gépp loolu mooy li nga xam ne ci leen jëm du ñaan suñu borom yóbbu jàmm ak salaam bi baraka xadim Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa jëf jërëjëf sëriñ Modou Mbacké xalifa sëriñ Abdoul Wadoud kon nag mbokki jullit di mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu sëriñ Fallou Galass si la ne kenn bàyyit fenn bàyyit ñenn njaboot ak seexul xadim gi tàmbalee ko daara xudus kër seex Moustapha ba ci kër seex Mouhamadul Moutada kër soxna Faat ji ba ci kër soxna May mbooleem seex yi àndoon ak Serigne Touba Xadim Rasoul ñu ngi leen ci woo képp koo xamante ni bëgg lebal Serigne Fallou Galas Serigne Fallou nee na nga lebal ko ci bés bii képp koo xam ne mas naa lebal itam nga fay ko ci bës bii ndax amul ku may sëñ Modou Rokhaya moom lay waaje moom lay wàllee bis bi nag mi ngi tolloog fukki fan ak benn ci weeru février yi ñu dëgmal ci Touba Daaru Salaam moo tax ñi ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn Serigne Fall ne mi ngi ci woo mboolem ay mbokkam askanu Tayba ak askanu Longoor ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo ndax xam na ni bés bi seen bësa képp ku mas a lebal si rek Serigne Fallou ne mi ngi leen ci woo waaye itam ñi nga xam ñooy presse bi sëriñ Fallou ne mi ngi leen ci woo bàyyiwut rajo site internet ba ci télévision bàyyiwut kenn ba ci journaux yi itam ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp bàyyiwut kenn ndax Serigne Fallou kenn ku ne xam na ni ci biir liggéey bi la bokk waaye itam boot na mboolem presse bépp teete na leen ba kenn ku ci nekk tey mën a am si fi bopp kon nag woote baa ngi noonu sant Serigne Modou Rokhaya la ci Daaru Salaam fukki fan ak benn ci weeru février ñu ngi woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.